c'est bien que fu ñu nekk waa public la amuñu droit nekk si mais le problème en est que mënuñu ñëw yëkkati ñun tablier yi bàyyi fa kees orange monnaie yi bàyyi fa canal horizon yi bàyyi fa ñëpp dañu ñëpp voie publique la ñu occupé qu'est-ce que PMI yi voie publique la ñu occupé ñun mënuñu occupé voie publique amuñu doole ñëw yëkkati ñu bàyyi fa ñooñu on est d'accord suñu yëkkati yëkkati ñëpp si nous demande dañu ñu defal ñu ñu defal ay tablier bi on a on a les moyens parce que ce sont des sociétés françaises. C'est ça qui nous fait mal. Le pays nous appartient tous. Macky Sall doit son pays, mais pas les intérêts des Français. On est désolé. C'est ça qui nous fait mal. On fait partie du pays. On n'est pas parti en grève. Nous sommes des jeunes. On se bat. gars yëpp ñu ngi gis nii 11h ñun ndekk duñu añ xaar ba reer parce que on n'a pas les moyens président koo xam ne tey mu jël tubaab bi a bu il faut il a le droit de faire fépp caisse orange es Orange Money ñu ngi si ginnaaw ay Baobab microcrédit toutes les sociétés françaises ñun on a rien on a même pas mënuñu am sax teg table teg table on n'est pas d'accord parce que voie publique on doit pas l'occuper on doit pas la, la voie publique aux Français et le bañal ko Sénégalais c'est ça qui nous fait mal c'est ça qui nous fait mal oui on réclame notre part du pétrole le pétrole ça nous appartient ah, le président nous appartient on est désolé merci une personne, c'est le combat de tout un peuple. Il faut que mon l'air. Yes.